front de résistance nationale jébbal ki xalif général des mourides yónni ab bataaxal boo xam ne dëxëñ nañ ci limu lépp lu ñu soxla te duñ ci dellu ginnaaw. képp koo xam ne mën nañu jàpp ci kaso bi ndax om politique wala femme politique boo xam ne ànduloo li président di wax ñu bàyyi la ñu génn fitna bii nga xam ne Dakar ak Sénégal yëpp dund nañ gis nañ ci ñoo xam ne bokkuñu police ñu alkaat ñu rëbb xale yi di dóor gis nañ ci itam yu yore fetal taxaw am na solo ñu rëbb ñooñu arrêté leen yoon mën a dal seen kaw parti yu opposition li ñu bëgg mooy ñu teg gi parrainage bi ak yeneen i mbir. dara indiwu ko sudul. war a génne ay opposants ñu bañ a bokk élection présidentielle dund nañ ko. ndax nag parrainage man na am waaye parenage bi ñu taxawal ci Sénégal kenn mënu ko contrôler mënu tane te loolu indi na décision bi conseil constitutionnel génnee ci 13 janvier 2019 mu duggal ci loo xam ne mën na ta doon dëkk ndax parenage du leneen sudul loolu la ko constitution waxee signature électeur Serigne Moustapha Mbacké Bassirou Proxaan mi nga xam ne moom la xalif général des Mourides yónni yëkkati na fa ay kàddu yu jur yaakaar may ngeen ko cër sant na leen ci gërëm na leen ci yeneen joom si ca des wax na ko la mu koy wax moom it gis na ci moom métti na ci moom waaye nag la ko ci nekk naqari moom lépp dana def kémtalaayal kattan ba sëñ bi du met la ko am waaye nag na ko may ndax nguur dafa am nu muy doxe ñi jiite parti politique yu gën a am doole ci opposition bi bokkoon nañu ci moom leen ndaje bokk ci ñoom xalifa Sall ak Ousmane Sonko juróom fukki millions yi nga xam ne moom la Serigne Mountakha Mbacké maye junj nañ ko fa